ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen mission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba tey ji seen mission sociale toute la ville en parle fas yéene waxtaane jafe yi nga xamante ni ñi jàng ba noppi yor seen lijjaasa ñu ngi koy am file ci Sénégal di ñàkkum xëy mi rawatina nag le phénomène bi occupé actualité bi di Barça wala Barsaq ñu bari bëri jàpp ni li ko waxal du lenn lu dul jeunes yi nga xamante ni ñi ngi ci réew mi te mënuñ am liggéey euh, ngir waxtaan ci jafe-jafe yooyu lee tey ji moo waral ñu dalal Yves Nzale nekk coordonnateur bu regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal euh, ñu koy nuyu di ko dalal jàmm soxna Ndeye Comba ñu ngi lay fay di la di la gërëm di la sant di euh, rajo bi waa rajo bi di nuyu sénégalais yi déglu di nuyu képp koo xamante yaa ngi déglu émission bi. tey jii ñu laaj la si seen kuréel bi nga xamante ni teg ngeen ko tuddee ko regroupement des diplômés euh, sans emploi du Sénégal ci ban at ngeen ko sos exactement te lan moo ko tax a jóg. waaw. soxna Ndeye Comba balaa balaa maa àgg ci loolu damay bëgg d'abord jaale famille sénégalais yi nga xam ne ñàkk nañ seen ci Barça wala Barsax bi di di masawu coono waajuru xale yi ñi nga xamante ne boobu léegi ñu ngi daw gauche droite pour mu bëgg luñ dimbale seen waajur mu tëleen ba mu jaral ñenn ñi ñuy songu géej gi yaakaar ne suñu demee Barça dina tane fii dina tane Sénégal waaw loolu nag euh, ba gis nga ni mu tax. ay jeunes yu bëri ñu dajaloo ci réseaux sociaux yi ne dañuy organiser une journée de deuil national. bi ñu organisé loo xam ne tey. li nga xamante ne état moo ko waroon def. te état du Sénégal ko. lu mel ni am fi ay daw bakkan ndaw yu bëri ñàkk seen bakkan ci géej. autorité kenn waxu ci wax ak sénégalais. li moo ëpp fuuf li dee ci te corona bi mu amee façon mesure bu ko. lu mel ni xew fi ay xale yu ndaw. ñàkk seen bakkan kenn moo nangu nangu ci wax. bu mel ni ay xale yu dee. donc ñun ñu ko ñaawlu. te di wax sénégalais yi. nañ nañ gën a farluwaat léegi nag concernant suñu structure. kuréel gi exactement ñu ngi ko créé en 2011. donc c' est une structure boo xamante ni 2011 la la kayit di pare. boobu ba léegi deux mille onze ba léegi nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi béy suñu waar ci xëyum ndaw ñi rawatinaa nag ñi nga dañoo jàng ba am seen mais bi ngeen koy sos lan la exactement Enzale parce que da ngeen ko sos nii parce que da ngeen am envie rek sos benn regroupement bu boole ay ndaw yu amul liggéey wala lan moo leen ci poussé peut-être am na benn cause bu leen poussé tax ngeen sos kuréel bi di ci yëngatu depuis euh, officiellement depuis 2011 ba léegi. waaw damay nuyuwaale au passage suñu mag parce que ñun ñii ñoo ko créé suñuy mag ñoo ko créé woon en 2011 boobu ñun ay gone la ñoon mais nag yàlla dafa jamono dafa dox ba ñuy ñu ba ñun yor parce que booba nit da nga daan jàng ci faculté yi am sa diplôme du am foo xee foo am foo dugg maanaam du am liggéey concours amul recrutement amul ñoom ñoom seen jamono ñoo xam ne lii du yoon ci lañ créé woon structure pour xeex li dañ ci bëgg concours yi am képp ku jàng ba pare am say diplôme nga mën a mën a am am nga am liggéey aw awu say waajur parce que da nekk gone gu ndaw say waajur ñuy investir di def lu nekk ñëw ba nga doon magum jëm sax sikkin nekk ci biir kër gi munoo dara dóoroo puusoo paasoo lu métti la teel teel lu la mais tey jii pour yow euh, euh, Zale ba ngeen euh, sos kuréel gi kuréel gi ñan ñoo ci bokk exactement yan ay étudiants ñoo si bokk ñu jàng ba pare yor seen lijaasa ñoo ci bokk ñan ñoo bokk bokk ci ci kuréel gi ak ñaata ndaw la regroupé. waaw li li tubaab bi li tubaab bi wax officiellement ñëpp ñi nga xamante ne am nañ à partir de bac jëm kaw. Mhm. parce que moom moo nekk bac mooy premier diplôme enseignement supérieur. dëgg la waaye nag am na ñoo xam ne am nañ doctorat. Mhm. am nañu am maîtrise am nañu am licence am nañu am BTS. ba léegi dem nañ ba nga xamante ne xam ne ay ndaw Sénégal même ñi xam ne amuñu diplôme ak ñëpp ñi xam ne dañu am ay diplôme Mm-hmm. parce que liggéey la ñu bëgg bay dee ñun ñu toog di seetaan mënuñu dara suñuy morom la peut être ñun suñu amee chance dem école jàng ba am diplôme ñoom peut être amuñu chance boobu wala accompagnement amuñu ko ba mu war a mën a àgg suñu diggu te tamit àdduna ñëpp mun ñëpp mënuñu ñoon ay diplômé te ñëpp mënuñu nekk ay cadre léegi ku nekk ku nekk da nga am borom féete dëgg la looloo tax nag comme te ay sénégalais la ils ont le droit à un travail ils ont le droit au travail. Mm-hmm. comme tous les sénégalais donc loolu kon su suñu bafouillé seen droit maanaam maanaam ñàkkal fayda seen seen seen seen ak seen ñun loolu dañ dañ dañ dañ koy dañ koy ñaawlu. d' accord léegi mais su lu ñuy ñëw déjà bala ñuy dugg ci phénomène u Barça wala Barsaq bi dinañ ci dugg ci kanam maanaam tey jii pour yow Zale lan moo waral xale yi dañuy jàng ba pare mais munuñ am liggéey pour yow lan mooy cause fondamentale bi lan moo ko waral si sa si sa si sa si sa xam-xam sa gis-gis. waaw lenn waral lu lu lu li ñuy tubaab yi waxee manque de vision ñàkk ñàkk gis-gis. ci matière emploi ak insertion yow mënoo ay gone bi judd di jàng te nga xam ne ni fii kat dañu am diplôme te su ñu diplôme dañuy dañuy bëgg a liggéey te yow xamoo ak lycée mais xalaatoo tabax entreprise xalaatoo tabax usine yow xalaatoo di ñoom suñu paree dañoo dañoo war a dañoo dañoo war a dugg dans li loolu ñàkk gis-gis la ak mauvaise pratique maanaam di li tubaab bi mauvaise foi yow mënoo mënoo organiser ay nit jàll. Mhm. ba desul lu ñu exercer ñu ne ay nit taxaw ne ñoom ñooñu mënuñoo dugg nag suñu duggee ko def mën nekk ci biir di jaay ne ñeneen ñi mënuñoo jaay mënoo ne recrutement su amee fonction publique nga jël say militants jël sa dëkk ak say jarbaat ak say ak say turandoo say militants yeneen sénégalais yeneen toog leen xaar léegi loolu léegi après bu ñu ñu mujj ñenn ñaa ngi di jeunes yenn jeunes yi bëri ñu ñoom dañoo ay ay ay entreprise yu ndaw ma maanaam dañ doon ci dañ jaay café Touba ñii ñii am yeneen affaire yu def ay ay ay cirage ak kenn xamut léegi ñooñu fi fi ñu doon nekk ñu daax leen fa hmm. ñooñu nekk ay ambulant amatuñ possibilité nekk ambulant léegi ñu ne ñoom le peu bi ñor ci xaaj dañ ciy jël gaal gi dem da parce ñoom seen réew bund xatal nañ leen léegi léegi yow loolu nan nan nga bëggee jeunes am insertion. ñu yow pour yow pour yow ñàkkum liggéey bi Zale. pour yow ñàkkum liggéey bi mooy euh, mauvaise politique de l'emploi bi nga xamante ni état Sénégal teg na ko moo ko andi. waaw mauvaise politique de l'emploi moo ñu fa déparé. Mhm. mais facteur dafa bëri. gis nga ñi nga xam ne dañuy yëngu ci jàpp ci géej mhm. ñoom nee nañ. Mhm. géej bala ñuy ñëw ci géej gi euh, ñu ngi toll si lan moo waral ñiy jàng ba pare jàng am seen lijaasa mais mënuñ am liggéey lan moo ko waral maanaam bu fekkee mauvaise politique de l'État am na d'accord mais beneen bi est-ce que amul yeneen cause waxuma euh, exactement ñi jàng ba pare war a am liggéey mënuñ am liggéey lan moo ko waral yow soo jàngee am sa diplôme nga ñëw bëgg a fi ngay déposé ministre bu ko jiite mu ne nañ dugal ministre am nañ dugg waa dëkkam ah nañ dugal ay mbokkam léegi yow nooy def soo ñëwee di déposé soo déposé dossier soo leen wane ginnaaw ñu xotti ko wala ko wala ñu sànni ko soo soo kenn ku la boole ñoom soo ñëwee ku la yabal la nga njëkk a laaj affaire bras soo mu bras long boykat bi ni mu ko waxee bras bi soo ñi su li mooy kan moo fi yónni soo concours bu ñu ko organisé mën nga mën nga toog ay at du ñu organisé concours. mais concours yi fi nekk nag concours yi ak ñoom seen. waaw loolu laa expliqué. Hmm. concours toog juróomi at juróom-ñaari at du ñu organisé concours. ci li ñuy wax limite daal am maanaam say at yokk. te suñu nee ba di ko organisé ñu jël fukki nit. fekk euh, ñaar fukki junni déposé nañ da jox dama jox exemple rek. notariat. notaire mooy maanaam ñi nekk notaire. 2013 lañ ko mujj organisé. 2013 ba 2020 ba 2021 sept ans yu topp amul ñi ci jotoon a jàll concours booba léegi ba léegi nanguñu leen nominé yaa ngi dégg. Mm-hmm. huissier même chose expert même chose. Euh, ba ba ci police bi 2017 foog nañ 2017 ba ren jii la gën a maanaam toog nañ trois ans organisé avocat baro kañ lañ ko bëgg a organisé na léegi loo bëgg ENA da ngay toog di xaar léegi soo ñëwee ñu jël ñu jël fanweer nit fekk yow lu mot. Euh, euh, ngeen euh, fukki junni nit déposé léegi ñeneen ñi jàll doon ñu def concours bi ñu def pas compliqué rek da ngeen dem ngeen laajte fu ñu defee concours yi laaj ñaata inscrits ñooy concours yi fi jot a jàll yi jum def ñaata inscrits am ak ñaata personne la ñu a nga xam ne kon ñaata nit ñoo def kon yow l'emploi mhm. boo xam mhm. pratiquement nous avons trois cent mille diplômés par an yow doo absorbé cent mille kon ci biir daal da nga bëgg a wax euh, affaire bras long moo taxaw fii Sénégal moo tax diplômé yu bari du ñu mën a am liggéey beneen bi euh, wax nga si wàllum fonction publique bi boobu tamit am na importance parce que gis nañu njiitu réewu Sénégal ci promesse électorale am yi gën a ngand en 2012 euh, ci campagne bi moom mooy utal ndaw yi xëy ma bu ma toogee déjà dina créer cinq mille emplois daa ñu recruter jeunes yi ci fonction publique publique bi ainsi de suite euh, boobaak léegi euh, lan nga ñu mën a wax par rapport ak recrutement ci fonction publique ak euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a jàng ba pare yor seen lijjaasa est-ce que li njiitu réew mi waxoon gis ngeen ko wala gisoo leen ko. waaw xam nga loolu loolu li ma ciy tontu dafa très simple. 2018. lañu annoncé dañuy réduire cinq mille quatre cent quinze deux mille dix neuf ñu génnee liste liste boo xam ne nii motul motul mille daanaka ke euh, temps yàgg na sapee ay trois mois yooyu ne ñu génne liste boo xam ne motul cinq cent jàppal ne depuis deux mille dix neuf bi recrutement cinq mille et quelque boobu léegi deux mille recruté wuñ ko te dañoo ne woon deux mille dix deux deux mille vingt deux mille vingt nii jeex na jeex na te boobu léegi recrutement mënuñu ko def parce que recrutement yooyu noonu muy ministre de la fonction publique Mariama Sarr bi nga xam ne dafa jàppee fonction publique comme mairie mairie Kaolack elle confond mairie et ministère kaakaar ministère am bi waa Kaolack dong la ci war a jël ay mbokkam la ci war a jël ay militant am ay moo ko ci woon loolu soo ko weddee li may laaj li mm. may wax nii. est-ce que am nga si ay preuve li ngay wax nii. Ah, mais am na luy prouver que ñi ñuy jël c'est c'est pour euh, affaire euh, maanaam ay militants politiques maanaam ñi jege ministre bi ainsi de suite wala ñi bokk APR la ñuy favoriser bàyyi ñu yow noo mënee def recrutement ay nit déposé depuis deux mille quinze deux mille seize deux mille dix sept nit ñëw déposé même pas un mois nga jël ko kon tey nga xam ne kooku ça a été recommandé loo jëlee ku am ba am na juróomi at wala juróom-ñaari at nga xam ne kii léegi responsable de famille la war doon nga jël koo xam ne mu ngi doog am bac wala nga ndaw bu doog am bac jàng gu dara daje gu dara sonn gu dara nga nga nga jël ko bàyyi ma gum jëm moo xam ne wax na yor kër waaye war ngaa fekk ko am comme trente ans bindi fonction publique ça fait cinq ans nga jël koo xam ne ren mu ngi doog bindi fonction publique amagul sax vingt ans wala 22 ans la am nga jël ko nga recruté ko foo kon yow daal maanaam mbirum politique ngay wax si fonction publique kon li président Sall waxoon gisoo leen ko. waaw mais loolu amul moom moom président depuis mois de juin ñu ngi ci novembre li ñu waxoon ci fonction publique léegi fu mu toll. Mhm. yaa da ngaa dégg recrutement bu génn wala da koo gis. déet ah voilà su fekkee dem dafa am ñu def suuf ñoo ñu. kon daal emploi yi ñuy wax ci fonction publique yéen yëgoo leen ko gisoo leen ko tinoo leen. moom mooy li rek paacoo bi ak compal bi daal moom moo ne ci fonction publique ñu ngi koy compalante di ko paasante. Mhm. te yéen compal bi ak paasante bi yéen seen kuréel gi bokk ci. ah déedéet ñun ah bon lu tax ñu seppi leen lu tax ñu ne da a teggi ah, ndawal. ah déet dañoo bëgg gone guy wax dëgg xam nga xam nga ni mag moo xam ne ne daal daa ak ci kaw am lu mu làq ci kaw gone guy téen da koy janaal mhm. gone guy téen di xool asamaan da koy janaal te mënu la jóge fi te rawatina soo li nga ak ci kaw soo ko mooma loolu moo leen dal loolu rek wuñ ko tudd voilà léegi tamit ñu wax ci Hivane euh, Sallé ñu wax ci euh, li nga xamante ni mooy exploitation wu ndaw yi ci entreprise yi am na ñoo xam ne euh, jàng nañ ba pare jot nañu am peut-être benn lijaasa ñaar ainsi de suite euh, dugg nañ ci entreprise mais bis nañ ni entreprise yi dañ leen di exploiter ci ay stage yoo xam ne du jeex duñ leen fay lu baax ainsi de suite est-ce que loolu yéen bokk na ci seen xeex ñi nga xamante ne ay ndaw lañ jàpp nañ sax am nañ liggéey mais au fond amuñ liggéey dañ leen di exploiter rek ci entreprise yi est-ce que bokk na ci li nga xamante ni yéen a ngi koy xeex. Mhm. te loolu corona bi dafa tax ñu ñu yokkal suñu suñu suñu lim maanaam bëri na ñu nekkoon ci situation yi mel noonu ba yaakaaroon ñoom am nañu liggéey corona bi dafa ñëw ñoom ñëpp ñu daaxaat leen ñu ñëwaat ci chômage bi. Mhm. parce que dañoo seetlu Sénégal da ngay stage juróomi at. Mhm. duñ la dugal duñ la bax dañ lay exploité dañ lay exploité loo ba nga sonn. ñu bàyyi la deux mois trois mois jëlaat la. noonu la def yow contrat euh, à durée

même ñi nga xamante ni ah, sax jot nañoo dugg euh, gis nañ ni tout n'est pas rose. waaw loolu kay yàgg nañ ko dem parce que ñun suñu objectif c'est un emploi digne c'est emploi permanent emploi temporaire. Mhm. ñun doxuñoo jóg ñun li ñu bëgg jeunes yi ku ci am emploi mu am un emploi permanent. Mhm. xam ne il sort complètement du circuit et il est sécurisé et quand il est sécurisé il pourra apporter à l'économie mais il pourra apporter à la société en accompagnant ses parents. Mhm. et en accompagnant mais bëgguñu ko xam da ngay def contrat un an deux ans ñu ñu dagg an deux ans amaat wala stage yi te li ci bëri soo fa xamul kenn duñ la dugal. Mhm. léegi su soo fa xamee kenn mu dugal la su su violé ses droits tu es en mal pour nga mën a kaas xam nga su fekkoon da ngay déposé poursuite la ñu jël stage su suñ la suñ la suñ la renouvelé wu euh, wala ñu embauché wuñ a am nga droit kaas parce que xam nga ne yow da nga ko mérité mais su fekkee nag relation mën ko dugal. ah doo doo mën a kaas xëy na li a di mooy ki la moom ngay contacter rek ba mu bralon bi kon ne wa kon affaire affaire bralon bi daal dafay revenir à tout moment mais mais mais Zale yéen lu tax duñ leen gis ngeen di organiser parce que temps yee sax gisoon nañ fi handicapé diplômé yi ñoom tamit di def marche na ñoom dañu jàng ba pare yor seen lijaasa jaar sa jaar fi ñëpp war a jaar war a am liggéey mais jëluñ leen maanaam dañuy dund discrimination jëluñ leen tout simplement parce que dañu am handicap est-ce que yéen yéen a ngi xeexal ñooñu bala ñuy ñëw si beneen question bi. nga xam ne ñun suñ suñu combat. ça concerne tous les jeunes sénégalais. et nous sommes de tout cœur avec ñoom. parce que loolu loolu c'est a y a y e ce que se fait et qui est qui est, euh, qui est y a un décalage entre ce que dit la loi et et ce et ce que et ce qui charge d'appliquer la loi. loolu moo ñu yóbbee loolu ñun on a on ay responsable lañ ñu ngi ay Sénégal lañ dañu gën a yóbbu bëgg Sénégal li Sénégal ku ñu ci ñu ci woo dañuy lépp lu yàq ku ñu ku ñu ko yëgaloo ku ñu ko yëgaloo dañ koy dañ koy bañ corona bi ba mu amee dañoo suspendre suñu activité yëpp bàyyi suñu yëpp le le 3 décembre organisé organisé nañu euh, marche le le le février organisé nañu sit-in buntu ministère de la fonction publique corona bi jub ñu ne corona am na ku nekk na nga toog parce que dañu ku ne sitting ne dajaloo ku ne marche ne dajaloo. Mhm. donc ñu ne ci mesure barrière. ñu mhm. état du Sénégal jël suñu bàyyi lépp toog malgré malgré que pandémie bi mu amee ñëpp gis nañ ñu accompagner leen ñëpp lañ jàppale parce que je ne peux pas concevoir jàppale employeur jàppale employé bañ a jàppale sa emploi. kon loolu xam ne am loolu ñu subir ko noppi ne ñun loolu du suñu objectif. Mhm. même si on est déjà en cause dañoo ne c'est c'est pas important on laisse passer euh, léegi nag da ngay da nga yàkkamti mais mardi dañuy organiser une conférence de presse à Guédiawaye avec ah, nga gis ni euh, Zale bi euh, diplômé euh, handicapé yi defee plutôt une marche quelque jour après gis nañ njiitu réew Sénégal génnaat di waxaat ci carte d'égalité des chance ñu taxaw ci pour diplômé yooyu yor seeni lijaasa ñu mën leen utal liggéey maanaam mm, li tax jóg carte d'égalité des chances loolu lan nga ñu si mën a wax exactement. ñun xaaruñ ko cee wax ci ay jëf lañ ko xaar parce que depuis mois de juin nee nañ dañu war a àggale recrutement fonction publique ñun gisuñ dara wax na keroog ci handicapé yi gisuñ dara donc ñun ñu loolu wax dëgg yàlla amaluñu njëriñ amalu amaluñu njëriñ yóbbu yóbbuñu fenn ñun lu ñuy yóbbu moo ñu intéressé ñoom organisé nañu euh, marche te d'ailleurs ñun ñun dañ leen di jàppale am nañu ay des handicapés yoo xam ne ñun lañ bokk. ñoo xam ne nii dañoo bokk ci structure bi waaw ñun liñ liñ liñ war a def mooy mardi incha allah dinañ organiser une grande conférence de presse à Guédiawaye avec des jeunes qui avaient tenté l'Atlantique bëggoon a bëggoon dem Barça wala Barsax ñun nag suñu devoir mooy duñu duñu ko mos a bàyyi ñu ngi ñaan jeunes ñu bañ a dugg ci géej gi ndax suñu demee ci géej gi ñàkk seen bakkan ñun ñoo ñàkk ñoo ñàkk suñu morom ñoo ñàkk suñu xarit. te ñàkk muy dëkkandoo parce que géej googu doomu ministre dafa dem doomu député dafa dem doomu directeur général dafa dem doomu président dafa dem doomu benn homme politique dafa dem donc ñi fay dem mooy ñi xam ne ce sont des gens issus des couches défavorisées mhm. ay sans emploi ay chômeurs ay marchands ambulants ak ak ñi nga xamante ne ay chauffeurs gi ay apprentis chauffeurs gi yooyu mais képp ku am na sa situation baax na doo songu géej kon ñu ngi dire que ñi nga xam ne ñu am problème bu xëy ñi nga xam ne nii amuñu liggéey ñi nga xam ne chômage da leen fanaan ak ñi nga xam ne nii da ngay soo liggéeyee ba weer dee. Mhm. nga am soxla fanweeri junni. Mhm. fekk juróom juróom fukki junni kii fekk fukki junni nga yor. nga yor. Mhm. nga dem a dem a dem a dem ba xam ne lii mënta wéy nga ne teemaa dem Espagne. ñu ngi leen di ñaan bu kenn dugg ci géej gi ndax ñooy ñàkk la preuve. ñoom bañ dee ba jëndi dee ci géej gi ñoom waxuñ ci liggéenti wuñ ñu ñu dee beneen réew ak ñu dee yeneen circonstance Sénégal mënuñu toog ñu naan lu tolloo euh, presque juróomi téeméeri nit ñu dee ñu waxut donc loolu li tubaab bi wax c'est un silence complice waaw c'est silence coupable boo xam ne autorité sénégalaise hmm. a commencé par le président lui-même parce que moom moo woon di ko wax lu mel ni su amee daa war a toog génn télé wax ni mu defoon ci corona bi génn télé wax ñëpp déglu ko mu wax ak ndaw yi ne leen réew mi métti waaye maa ngi leen ñaan ngeen toog ñu xool lu ñuy def ba ku nekk am ci loo jàpp ngeen bañ a dem dugg ci géej ba ci ñàkk seen bakkan. Mm-hmm. parce que jeunes yi ñu ñu xam aussi euh, Europe bi ñu dafa pare. Mm-hmm. alors que ñun Afrique moo paregut te ku paregut moo soxla moo soxla defar. Mm-hmm. ndeke defar ay ndaw ñoo koy def ñu jàng ñu am xam-xam mën seen métier ñoo koy defar foofu ay réew yu yu sotti la alors que sotti la mais ñun dañoo am malchance amuñu autorité yoo xamante ni am nañ auteur di autorité yi nga xamante ne ñoo nekk Europe espace joom yi dem am ñun loolu moo ñu soxla waaw suñu amoon autorité président yi li président mhm. kon jeunes yi nekk Sénégal duñu soxla dugg ci géej waaw ñun chance boobu la ñu wut pour yow pat pataaral bi nga xamante ni njiitu réew mi def na ko di président Sall est-ce que nekkul pat pataaral boo xamante ni euh, maanaam dafa amul solution ci jàngoro bi. waaw ñun xam nañ ni dafa amul solution. ay nan nangu rek y' a problème. côté emploi. Mhm. dañ cee laj léegi nag lu weex juum juubanti am na tooñ jégalu am na. kon ñoom kay bañ échoué ci emploi ba jeunes yi dee ci géej gi dañoo war a toog ne wax dëgg yàlla yéen a fal te ba ngeen may fal da ngeen amoon yaakaar ci man te yaakaar googu nu war a tas léegi nag xew na li am ba am am na nañu xool lu ñu ko jubatee mais buñ ne pata pataaral parce que pata pataaral day yokk ci xar gi kaw rek ñun ñun ñii sax xam nañ ñoom mënatuñ lajj nañ mm-hmm. mais teewut nag ñu ngi leen di àllal suñu loxo di leen naan ñëw leen ñu xool bu ñuy bu léegi euh, peut-être euh, Zale am na ñoo xam ni comme ni nga ko waxee euh, c'est vrai amuñ diplôme ñu bari dugg nañ ci géej gi yàq nañ seen business ainsi de suite mais est-ce que tamit amul maanaam amuñ problème du société boo xamante ni mooy pousse ndaw yi ñu ne par la force ñoom daañu tekki te jàpp nañ ni tekki googu foog nga dem en Europe nga dem Espagne foog nga dem daal dëkk tubaab bi est tamit société bi nekkul responsable d'une part ci li nga xamante ni actuellement mi ngi am mu nekk vraiment une vraie crise sociale. waaw xam nga responsabilité bi ñi ci jiitu mooy état du Sénégal jeunes suñ ci amee responsabilité cinq pour cent la wala un pour cent te seen responsabilité c' est une conséquence d'une défaillance mm-hmm. au sommet parce que yow soo juddoo ci réew déppaloo ñu la dara dugaluñu la école dimbaluñu la ci formation dimbaliwuñ la ci leen leen leen dañ laa bàyyi da nga demal sa bopp waaw soo demalee sa ba daanu ci am nañu responsable parce que bàyyi day ko wan mu jàng métier ci kër dem mais su fekkee bàyyi daa jur doomam toppatoo xangul laabul jàngalul jàngal adduna sa def ko yarut léegi kooku kay moom am am am lu muy représenté doom su doom bi melee nen ci moom la loolu moo ñu def parce que état du Sénégal dañoo seetaan yow dégg nga di wax wax wax naa ko pêcheurs yi nee nañ ñoom amatuñ jën. Mhm. jën yi jaay nañ ko Europe. waaw parce que parce que dégg ah, am na beneen information bu génn voilà. Mhm. dégg nga. wala ma ak information bu génn récemment par rapport ak beneen. waaw mu ngi noonu confirmé na ko. Mhm. nee na géej dañ koo joxe. joxe nañ ko ñu doon liggéey ñu doon liggéey ci géej amatuñ amatuñ accès ci jën mhm. te ñoom ñu mën a dawal seen gaal ba Espagne dañoo mhm. xam ne ni suñ ay taw yóbbu leen ci gaal yi dañ la compensé nañ ci am mais danañ ko def parce que nit ku sës lu ne lay def piñ piñ tax moom lay def te tax yaakaar bi bu tax mhm. yaakaar bu tax day yóbbu nit ci loolu te te nit yaakaar moo ko yor yàlla mi ñuy jaamu ah mu jaaral ñu lu ne dañoo am ci moom yaakaar su yabal yi yabal yi am danañ danañ danañ fay suñu jëf looloo ko waral yaakaar ak kóolute dafa am solo ci nit daa am solo ci ay nit parce que am solo boobu mu am solo moo tax nit ñi mën a nekk jàmm. Hmm. yow mii dama laa wóolu yaakaar ni journaliste la lu baax a tax nga ngay de ak def sa liggéey. Hmm. mais su ma jàppoon ni ku ku bon nga. doo journaliste bu am qualification soo ma wooyee du ma wax ak yow wala yow tamit da ngaa yaakaar ni soo ma wooyee dinaa wax ci problème ndaw yi ak avec la manière la plus opportune su la leeroon ni soo ma wooyee du ma la wax dëgg du ma wala du ma la wax problème jeune yi soo ma woo kon la le résumé de la vie c'est la confiance. d'accord voilà. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye kumba Moreau dalal euh, Yves Nzale nekk coordonnateur bu regroupement des diplômés sans emploi euh, du Sénégal ñuy waxtaane seen i jafe-jafe ak euh, ponko bu soxal actualité bi di Barça wala Barsaq ndaw yi jël géej gi ndax sax ñàkk espoir mais tamit Nzale ñu laaj la ci li nga xamante ni mooy auto entre entrepreneuriat parce que souvent sax autorité yi suñ leen interpellé ci problème mu euh, chômage bi da ngay gis ñuy prôné li ñuy wax auto entrepreneuriat euh, maanaam ndaw yi di mën a demal seen bopp teg seen entreprise u bopp mais da ngay gis ni ndaw yu bari du ñu am financement te am na tamit kuréel yu fi nekk ni dañuy financer ndaw yi euh, mais souvent ndaw yooyu lee du ñu mën a jot ci financement yi lan nga ñu mën a wax par rapport ak financement des jeunes Euh, par l'État du Sénégal pour affaire auto entrepreneuriat pour yow côté boobu euh, mi ngi avancé avancé wul noo ko gisee. waaw soxna si xam nga ni boobu avancé wul su avancé wul financement di ko am c'est pire que recrutement à la fonction publique c'est pire que absence de politique d'emploi looloo baraaloo rek a fa am ak seetlu financé samay booy looloo fa am. amul leneen ku la wax leneen ni mu ngi lay nax li ñuy wax ne financement xaalis boobu noonu d'ailleurs sax ñu ngi demandé ci autorité DER ak tout ak toutes les structures yi nga xamante ne dañu war ay financement ba ñu wax ñu xaalis bi kan lañ ko jox ak kooku noonu ñu ko jox lan lan la ci def parce que mënuñu concevoir ñu jël xaalis bi di di di di di enrichir leurs militants et leurs sympathisants alors que xaalis boobu c'est notre propre argent c'est l'argent des du contribuable sénégalais moo tax on demande solennellement à ce que la DER jàpp ni DER dañ ko war a auditer. waaw loolu la hmm, jàpp. parce que jàpp ngeen ne waaw. financement yi teguñu ko ci yoon teguñu ko ci xam soo bindee sa projet baax ñu jël teg. d' accord léegi kuréel gi di ANPEJ ñu tegal ko fi tamit ndaw yi pour ci euh, ñàkkum xëy gi naka nga gisee kuréel parce que ci temps wu Abdoulaye Wade amoon na pratiquement quatre wala cinq uh, kuréel yoo xamante ni lépp dañ doon yëngatu ci euh, ci ñàkkum xëyum ndaw yi maanaam jàppale ndaw yi accompagner leen ba ñu am xëy bi Macky Sall ñëwee mu jël uh, kuréel yooyu yëpp daal di dégager fusionné ko tuddee ko ANPEJ naka nga gisee kuréel gi di ANPEJ est-ce que yéen ndaw yi yéen a ngi koy sentir. waaw man damay laaj ba an an ANPEJ mu ngi am ba léegi parce que ñu dañu ko déggul fenn. Hmm. gisuñu ko ngi am de mi ngi fii suñu côté fii ci Sodida. ah man damaa yaakaaroon sax hmm. parce que man gisuma ko fenn ko fenn te gisuma tamit ku mu financé su amee ñu mu financé nañu ko wax moom ñoom ñoom rëccuñ ci audit bi. Hmm. ñoom da ci ñi audité lañ bokk parce que kenn gisu fi lañ def parce que mënoo ne yaa ngi financé euh, des milliers de jeunes sénégalais. alors que des milliers de jeunes sénégalais ñu ngi balaa dañ l'Atlantique ba ci ñàkk seen bakkan xam nga ku ci am financement dem dugg ci géej ku am financement du taxaw di marche ku am financement du def France de presse maanaam ci gàttal. Mhm. financement yooyu seen i bopp lañ ci finance. Mhm. maanaam seen i nit. ñoom daal ñoo ko séddowaat seen biir ak seen i nit loolu nga bëgg a wax. Ah, waaw soxna si xam nga nu ma paajoo boobu nga compal bi ma lay wax. Mhm. moom naa lañu jël def ko def ko élire en règle d'or lu ñëw ñu def ko paajo mhm. compalante ko mhm. mu jeex mais tamit est-ce que beneen problème ñëwaat tuuti ci cause yi li tax ndaw yi di jàng ba pare surtout ci seen kuréel bi Euh, les diplômés waxuma sax ñi nga xamante ni amuñ diplôme mais dañu gis ni souvent euh, comme par exemple ñiy jóge université euh, par exemple pour ñu am liggéey c'est un problème parce que formation bi ñuy jëlee biir université foog nga demaat ci beneen école de formation ainsi de suite est-ce que tamit amuñ problème encadrement wala problème formation ci boppam fii ci Sénégal ba tax ndaw yi dañuy am diplôme ba pare mais pratiquement diplôme bi du leen mën jëriñ liggéey. non xam nga soxna si. Mm-hmm. loolu wax ju yàqu la. médecin yi soo leen di formé l'université Anta Diop fan da nga feneen fu ñu leen di formé. oui mm-hmm. ma. waaw bu ñuy évoqué la pour pour cacher mm-hmm. que mën a jàng am ay diplôme ñii nekk ENA fu ñu jógee fu ñu jàngee ñoom ñoom seen bopp di wax loolu. nañ ko fa lañ jàngee. école de formation ba mu commencé bëri Sénégal yàggut. Mhm. depuis mille neuf cent soixante état Sénégal mi ngi am tous ces produits là venaient des universités enseignement enseignement euh, supérieur avantage bi mooy suñ la ci cité ay bonne formation foo dem as diir nga fay def da da ngay commissaire de police yi fu ñuy jóge ci la ñuy jóge suñ demee ñu ñu ñu en moins de deux ans ils sont opérationnels. et eh, ils sont donc nañ bàyyi wax jooju wax jooju waxi daanu ci saret la ça ne hmm. c'est juste un argument pour cacher une faille. loolu la mais fan yee ci gannaaw gis nañ ministre euh, Dame Diop ministre de de l'emploi euh, bi ñu ko interpellé ci problème euh, ndaw yi ci ñàkkum xëy mi fii ci Sénégal moom la mu wax moom mooy Euh, au Sénégal on n'a pas un problème d'emploi au Sénégal naka nga gisee euh, déclaration Dame euh, Dame Diop bi nga xamante ni def na ko juste après remaniment am na ñu bari sax yaakaaroon nañ ni du bokkaat ci gouvernement bu bees bi ndax déclaration boobu nga xam ne defoon na ko jeunes yu bari jàppee ko sax insulte yow naka nga gisee Dame Diop bu ne amuñu problème mu emploi fii ci Sénégal alors que actuellement ñu ngi dund loo xam ni ñëpp xam nañ ni ñàkkum xëyum ndaw yee ko waral. Ah, waaw xam nga loolu loolu ak jar naa tontu li xew. Mhm. ci dëkk a développé lu mot juróomi juróomi téeméeri at y a problème d'emploi là-bas. Mhm. seen président dégg nga ko sax du muy dam ba ma ñëwaatee chômage bi dafa wàcc. corona bi moo tax sa souvent bi yëgaat soo demee ay nit a nga fa jàng am qualification amuñu liggéey soo demee yeneen yeneen pays chômage a nga fa donc suñu nee Sénégal am na problème d'emploi man loolu loolu dafa lu ma jotoon xam xam ñenn nga fay laaj mhm. da nga ko fay jëloon nañ gaal gi te jotuñoo yegg ñu dëppal leen ñooñu ngay laaj ba mhm. xam Sénégal am na problème emploi ou pas regroupement de diplômés sans emploi dina am plus de sept mille adhérents. am am une centaine de milliers de de sympathisants. ñu naan am problème emploi au Sénégal man loolu duma ci tontu. mais est-ce que Zale yéen ba ngeen di xeex boobu ba léegi autorités yi mës nañ leen a woo euh, toog ak yéen ministre fonction publique wala de l'emploi wala njiitu réew mi toog ak yéen laaj leen seen jafe-jafe ak naka lañ leen mën a jàppale yéen ñi jàng ba pare yor seen lijaasa euh, te professionnellement mënu leen bokk est-ce que autorité yi mës nañu toog ak yéen waxtaan ak yéen. waaw autorité yi yëpp ñoom boo leen bindee accusé réception sax doo ko am. président bi lañ ko tontu wut ministre de la fonction publique ñu jóg ak yeneen yeneen i ministère man mii gisante naa ñu ministre de la jeunesse te loolu dama dama koy reconnaître dama koy rafetlu ministre euh, de l' emploi Dame Diop. déggante nañu waaye tooguñu pour échanger sur la question. Mhm. les autres gisuñ ci kenn dégguñ ci kenn xanaa directeur ASP. Mm-hmm. monsieur Birame Faye boo mm-hmm. xamante ne booba léegi lu ne mu ngi koy jëm pour jàppale ñu mm-hmm. soo su weesoo loolu am nañ convention de ak directeur de l' loolu ak direction de l' emploi quoi d' accord maanaam loolu jàppal ni leneen amut ñun première dame sax bind nañ ko ministre de la justice ñëpp daanaka ministre nekk Sénégal ministre yi Sénégal bu am rapport direct bu indirect ak emploi bind nañ la ci ñoo ñëpp lim ñi ma la jox donc ñoo ci xaw a yëngu ba nit ñi leen jeex na kon nag léegi nañ wax leen ñu waa Sénégal nañu àtte ñu xool ñun ba xam def nañ suñu devoir def nañ suñu devoir ñun bañ juddoo ba tollu jàng dañoo jàng bañ jàng ba pare tollu ci wutub liggéey dañoo taxaw ne dañuy wut liggéey te loolu loolu suñu constitution moo ñu ko garantir suñuy loi garantir ñu donc ay doomu réew mi lañ war nañu mën a liggéey ci réew mi tekk suñu ci biir réew mi teral suñuy waajur ba du duñu jaral ñu dugg si si géej ba ñàkk suñuy bakkan tey jii lan mooy solution euh, Yves Agne Zalec peut-être mooy suñu dernière question boo xam ne ñu ngi la koy laaj euh, lan mooy solution euh, lan ngeen di suggérer autorité étatique yi par rapport rek crise bi nga xamante ni actuellement am na euh, di ndaw yi jàng ba pare bëgg liggéey amuñ liggéey di ndaw yi nga xamante ni euh, sax peut-être amuñ benn métier bi am nañ métier mais gis nga xàddi nañ parce que gis nañ ni avancé wuñ benn yoon dix ans vingt ans ngay liggéey mënoo sax euh, tabax benn vraiment benn néeg ça pose problème ba ñu bari dem ne dañuy dem Espagne xooli foofu Eldorado tey ji yow lan ngay suggérer état wu Sénégal Sénégal par rapport ak jafe-jafe yi nga xamante ni ndaw yi euh, ndaw yi ci boppam ñu ngi koy dund rawatina ñu am qualification jàng am seen diplôme comme ni nga ko waxee. ah waaw ñun du ñu jóg ci def ay proposition soo xoolee suñu communiqué yi il faut mu am récepteur. Mhm. maanaam sa proposition kuy ku koy jot. mais soo proposé soo bindee kenn du la mais tey su suñu antenne bi looy proposé ñoom ñu dégg la waaw. Mhm. waaw boobu ñu ngi daw ci président. ba mu organiser conseil présidentiel. Mhm. sur l' emploi comme ça ñu mën a dégager perspective ñun am nañ ay propositions yoo xam ne war ko mën a def mais booba léegi wax ngeen bëgg ñun ñu def ko. soo maa ngi ñëw ñu waxtaan. Mhm. ñu ñu ne la bul ñëw ah léegi noo bëgg ñu def waxtaan kay ñaar koy def. mais amul tey ah. loo mën a suggérer ci antenne bi par rapport ak problème mu jeunes yi. dégg bu baax. ma ne amoo loo mën a suggérer si antenne bi fi ñu toll nii wax loo xam ne mooy solution par rapport ak problème bi lan mooy mën a saafara yéen seen. problème voilà waaw soxna si mhm. mhm. soo ko verrouillé ñi fa bëgg dugg nu ñuy def. mais noonu la pratiquement fonction publique. moo ko a def deux mille ba deux mille vingt daanaka deux mille vingt et un te boobu mais léegi problème problème bi secteur bu ne am na lu ko bloqué mais que mu mu mu mën a am un mouvement vers l' emploi la. am na lu ko bloqué. fas yéene ngeen amal am am naa double emploi rek. administration Sénégal ñaata nit ñu war a dem retraite Mhm. Mhm. ñu téye mhm. de fonction yi gis nañ ni dafa gën a bari. Ah, léegi yéen euh, Zale bu weesoo conférence de presse yi ngeen di def est-ce que fas yéene ngeen amal a plan d'action a yëngu-yëngal waaw carrément descendre sur le terrain pour que. Euh, problème bi autorités yi mën ci taxaw. waaw soxna si. xam nga ñun conférence moo ñu comme ñun sommes des de bons citoyens su ba corona bi amee. Hmm. dañoo bàyyi suñu activité yëpp. mais nee naa la mars dañuy def conférence de presse. Hmm. war nañu organiser une marche. te suñu paree war nañu installer euh, section yi dans dans tous les départements du Sénégal parce que pour nekk am nañu fa représentation. te les actions que nous allons mener ne vont limiter à Dakar. mais ça sera les actions en bi dans l'étendue du territoire ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. Ah, waaw maa ngi sant auditeurs yi di jégalu su fekkee am na ñoo xam ne wax naa leen lu leen naqari waaw xam nga ni wax dafa jafe waaw dégg na laaj su fekkee daal am na ñoo xam ne xaw naa leen frustré maa ngi leen di jégalu te xam ne ni li ñu li ñu daan xeex pour njëriñu ndaw yi Sénégal la pour njëriñu Sénégal la pour njëriñu waajur gone yi ak njëriñu gone yi te gone yi suñu jëriñoo waajur yi jëriñoo Sénégal bu Sénégal naatee kenn du fi soxla jóge di dem ba feneen ba di ci ñàkk sa bakkan ci géej ak yi leneen lu mu mën loolu kese la ci jubluwoon ñu koy remercier bu baax a baax kooku di Yves N euh, Zale nekk coordonnateur bu regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal ñu koy remercier ci tontu yi nga xamante ni andi na ko ci laaj ci ak ci disponibilité ñu doon waxtaanee lépp lu soxal seen i jafe-jafe ak tamit li lay di phénomène Barça ak Barsaq bi revenir en force di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de dix heures à onze heures di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nga xamante ni moo nekkee ci technique bi ndey Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité émission bi tamit ngeen mën koo dégluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu site internet www.rewmi.com jaa ngeen jëf.